yoon wi gudd na te metti na bëri na ay gàllankoor lool pour nga gis buntu ba ubbi ko di daj lu ne faw nga sonn lool ndax bërëb bim ne du bërëbu noflaay lu metti ak lu neex ñoo fi daje soo yaafusee rekk dañuy dem wàcc la dafa mel ne ab kursu ku la gën a ñeme moo lay gañe àndal ak sa doole ak gëm ne lii di ko am lii di ko man lii di ko doon tey def effort ndax yàlla yàlla bay sa tool te del jiim ndax jiim mooy taxam man mani never give up bul delta ginnaaw ndax yàlla bindalu la tànki ginnaaw ñemeel coona ndax ci liñ la bindee dafa ñeme coona bu ragal échec ndax esek moo lay wan yoon wi te moo la siy teg bul sikk sàkk ci li nga bëgg a doon wala li nga bëgg a def la doon lu baax yàlla dina la ubbil buntu ngir nga mën koo doon kon never give up jëlal mettit def ko sa waay looy am bul ko amee ci noflaay ngir nga mën koo sàmm xam valeur bi bul amee dara ci lu jomm nga ñëwee ci lu yomb demaat ci lu yomb bul doon yaafus si lépp looy def joxel sa kàttan ak sa mën-mën ci lépp looy def fexeel ba soppali say gént mu doon dëgg say rêve moo war a doon dëgg bul ko jàppe ay neen mani never give up yow ci sa jëmmi bopp yaa xam sa bëgg-bëgg yaa xam li nga bëgg a doon sa dëgg-dëgg yaa mën a yëkkati sa bopp waaye yaa ko mën a suufeel yaa mën a teg sa bopp ci yoon wi moytu noon yi lay pexeel soo góorgóorloo di nga àgg fi nga bëgg a jëmale sa bopp soo yambaree ba gaa yi raw la yaa ko teg sa bopp béréb bii di àdduna lépp dañ ciy rawante kon gëmal ne danga ngaa war a raw ci lépp ngir sigi sa bopp bërëb bii di àdduna lépp dañ ci rawante soo deltoo ginnaaw rek ñu daal di lay fàtte àdduna du bérébu nafulaay loo jimuta doon doo ko doon loo jimuta am doo ko am loo jimuta man doo ko man sa waay góorgóorlul bul ma sa deltu ginnaaw ma Never give up.